di yaay ci Bambaly Seck euh, ñu ngi lay dalal ak jàmm. waaw Sunugal 24 ngi leen di euh, nuyu bu baax di leen remercier ci invitation bi euh, di nuyu les hommes de l'ombre caméraman yi ak ñi nga xam ne ñu ne ci ginnaaw saa su nekk di nangu njaal bi ah di nangul njaal bi Sénégal yëpp vraiment gis nañu ne ku nekk jàll na mu doon lu rafet parce que ci moment yooyu rek kay gën a xam. ñi la gën a jege quoi et àdduna nag moo tëddee noonu ñu ñëw ci vidéo bi nga xamante ne def nga ko ci sa page Instagram di soutenir kooku di Dji Diack di manager ci Viviane léegi ñuy laajte lu waraloon loolu nga def ko. waaw sama wareef la euh, sama wareef la parce que tout simplement j'ai travaillé avec Dji Diack pendant très longtemps. et puis en dehors de ça dafa nekk c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé les artistes sénégalais ak ñi nga xam ne sax duñu artiste il a aidé beaucoup de lutteurs à avoir leur visa des chanteurs des musiciens des danseurs des animateurs culturels des gens qui travaillent si tu veux même les enfants yoo xam ne dañuy nekk ay euh, doomu yenn kilifa yi euh, amul ku mu dimbalewul donc moom c'est un manager te ñun nous avons une association euh, qui s'appelle Reçu qui est un mouvement moom mu nekk ci biir même loolu yëpp boo ko jëlee nga teg ko fële man sama bopp yàgg na ma féete man je pense que sama visa bu ma bu quatre ans c'est c'est lui qui est allé chercher ça euh, mu nekk nit bu baax boo xam ne képp kuy gor euh, li war rek mooy nga taxawu ko euh, ndax danga daan gis ay journalistes culturels la ah, comme yow animateur ay caméraman ñi war a dem Bercy ñi war a dem Dock Pullman euh, mais dafay sonn day bàyyi njabootam man je l'ai ay xaaju guddi muy dugg di génn di xool ñooñu nan la ñuy def ba am seen visa wala am seen rendez-vous xam nga kooku suñ ko seetaan seetaanee vraiment moi de ma part personnelle je serais malhonnête et euh, loolu moo tax ma lancé ko et que pour moi euh, dañuy ñaan rek. ndax ñaan rek lañu fi am euh, bugguma tooñ dugg ci beneen euh, euh, mbir moo xam ne je ne le maîtrise pas tout ce que je sais mooy damay ñaan et yàgg naa ñaan nguur gi yàgg nañ dégg suma ay appel lu ci lu ci bëri boog buy tombee suñu borom day faral di def mu am ma ne il faut ma def ko yow yaakaaroo ni justice mu ngi def yëfam ci cadre ji si justice mu ngi def liggéeyam bu baax euh, du ma tooñ du ma tooñ man euh, sum man ci kan laa màggee ci laa yaroo moi mon père euh, c'est c'est un homme de tenu il était un homme de tenue donc du ma dugg mukk ci mbir moo xam ne maîtriser wu ma ko mais ñaan fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi nit moom sànq rayoo nit gasuloo nit kàmb fexeluloo nit sàcculoo yaa ngi xool il même rendu na il même rendu service à la nation ñu mel noonu fokk ñu taxawu leen euh, justice mu ngi def liggéey mais baax na ñu leen di ñaanaat rek parce que tout simplement Euh, bi ñu ko jàppee dañu ci teg quelque temps feebar bi daal di dugg jot nañu libérer ay nit pour euh, vraiment euh, libérer un peu prison bi désengorger prison yi loolu mu nekk ay actes yu rafet bu tabas korite jotee ñu bàyyi quelque am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi leen di bàyyi man bugguma di di lim ay tur ñuy ñaan rek ñu booleel ñu ko ci parce que c'est quelqu'un quand même qui a qui a rendu service à la nation et ça il faut pas l'oublier loolu moom moo tax quoi. Euh, ci feebar boobu la ñuy des parce que gis nañ ministère de la culture yëkkati na ay fonds pour jagleel ko les acteurs culturels depuis boobu nag ay coow mu ngi ci dippe ñuy dégg partout yenn yenn acteur yenn acteurs euh, culturels yoo xamante ne ñu ngi ciy wax mais Baba Amdy dégguñu ko ci benn yoon ñuy laajte lu tax loolu waaw euh, Bamam di def na ñaari euh, ñaar ba ñetti sortie pour xaalis boobu génn vraiment euh, j'ai été au front ku ci mel ne man ak ay maam Ngor danga dégg maam Ngor wax fii mais di nga dégg aussi Baba am di wax fii ñaari nit yooyu daal xame naa leen ñu nekk au front di xeex pour xaalis boobu génn kenn ku nekk utiliser sa ay relations sa li nga xam pour que xaalis boobu génn mais tu sais à chaque sa sa manière de communiquer euh, ñi man euh, man moi je suis très pacifique moi je moi mon maître mot c'est le pacifisme ba nga xam ne wax naa mais poliment euh, rappeler au chef de l'État parce que c'est le protecteur des arts et des lettres rappeler que mais aussi les acteurs culturels sont là et que du way ak fecc kese Il ne faut pas oublier les autres métiers. Il a, il énormément de métiers. Euh, et après bi ma defee trois trois deux trois sorties et trois jours lañ ci teg quatre sorties après xaalis bi génn donc euh, def naa ko mais après xam nga nekkaat fii di di di di kaas jëmale xam nga mhm. donc je sais pas ban genre kaas ngay wax quoi. genre fi may waxee mooy maanaam ñi nga xamante ne acteurs culturels yi tey jii fonds yi bi ministère bi dippee yow yaakaar nga ni ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy partagé normalement par exemple. waaw bon fonds yi nag moom instant yi ku ci wax que ni partagé nii lañ ko defee defee wuñ ko nii euh, nit ñi dañuy wax lu leen neex hmm. euh, parce que nit ñi ñu ngi xool vraiment. Euh, je salue d'abord, euh, je remercie le chef de l'État et le ministre euh, Abdoulaye Diop Euh, ak euh, DEA le euh, directeur des arts monsieur Koundoul parce que ñoom tamit ñu ngi ciy def benn liggéey parce que boo taxawee nga kaas ku mel ne baabaam di daal di nay chef de l'état bi génne leen dimbali leen gaa yi tuuti su ñu demee ba génne tamit li war mooy après nga leen jërëjëf même su doyul parce que il faut reconnaître que ça ne suffit pas les on a oublié beaucoup de choses c'est-à-dire xam nga nit moom bu defee dara il faut saluer le geste d'abord il faut saluer le gest et je salue le geste encore mille fois c'est c'est très bien euh, est-ce que maintenant kii comme ni nga ko waxee léegi ndax dina jaar yoon ndax kii dina jot lii ndax kii dina jot lii pour moi c'est un peu prématuré de le dire parce que tout simplement rien n'a encore été fait on est en, on est en train de recenser euh, man am naa fi ay émission yoo xam ne avec ak ak BOUPS où je disais ça va être compliqué bu ñu chef de l'État bi joxoon xaalis xam loolu ba ma koy wax lii ñëwagul je disais qu'il y a énormément d'acteurs culturels et quand vous avez énormément d'acteurs culturels et que dans ce secteur on a du mal à les identifier c'est c'est un problème boo identifié wul nit ñi da ngay am problème bu doon l'ordre des médecins des avocats xam nga ne ñii ñooy avocats yi xam nga ne ñii ñooy pharmacie yi donc hôtel yi xam nga ne nangam la pour les aider day efficace maintenant quand tu as des acteurs culturels qui sont un peu partout tu ne peux passer que par les associations lu ci mel ne SODAV ay lu ci mel ne yam ay euh, nu mu tudd OMART wala keneen ak keneen xam nga wala AMS wala reçu bi nga xam ne foofu laa nekk mais chaque association ak ni nga mel wala chef d'orchestre yi tu sais dans un plan de travail chacun est libre tracé daal di ne man nii laa ko gisee ñii ne la man gisee wu nii mais toujours et il que ki gën a mën a anticiper moom mooy gën a mën a moytu yoon yi koy gaañ man nag j'ai trop de respect ci ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal parce que comité boo ci bokkee ou sous comité de la musique nga bokk ak sa ay mag parce que daanaka defe naa est-ce que gën ma fa nekk xale euh, da ngay am euh, da ngay am benn retenue tuuti da ngay mën a doxal lii lii di nga ko wax mais di nga am quand même looy garde mais euh, ñu ngi doxal pour l'instant ñu ngi doxal e je ne veux pas insulter l'intelligence des gens ni leur manière de faire parce que eggalu eggaguñ ci cappaandaw li mais li am importance c'est c'est de dire à ces artistes que kii fecc kii taasu euh, mannequin bi euh, waykat bi kii jouer théâtre ñooñu ñëpp ci lañu bokk bon dama cité ñooñu rek parce que y a énormément de métiers ah ñi ñiy tàgg Seyduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam euh, ñi nga xam ne ñoom genre Mansour mbay yeeg yooyu euh, mënoo ci tëb kenn maintenant est-ce que 3 milliards suffit ça c'est un point d'interrogation mais jabar moom suñ la ko mayee da ngay jël ba pare daal di sant yóbbu ko sa kër ga booy ñëwaat wax ay sa goro leen ah yeddal leen ma sama soxna si kat parce que moom dafa sikk ndax lii nangam nangam nangam noonu la mais c'est un peu prématuré de dire euh, bon du yoon nangam nangam nangam nangam je ne peux pas être d'accord ci loolu damay seetaan maa ngi def ay proposition xaw ma est-ce que proposition yooyu baax na est-ce que xaw ma ndax dinañ ko nangu mais je euh, je dis pas que je ne réussi pas mais ah je me trompe très très rarement ci affaire yi nga xam ne mooy waaj a ñëw parce que l'anticipation ñun biñ koy jàng dafa yàgg quoi anticiper mbir ba nga xam ne bu dara ñëwee du ñu bett regarde l'histoire de du Covid ñun resu dañu xamuñu woon ne feebar day ñëw qu'est-ce qu'on a mais ñu créer base de données base de données boo xam ne avec des cartes de membres qui sont numérisées carte de membres yi suñ ko jëlee scanné ko sa génn sa date de naissance fi nga dëkk fi nga juddoo euh, métier bi ngay def see numéro téléphone parce que lu tax c'est important mooy tey jii euh, soo jëlee benn acteur culturel mu dëkk Bambey mais fii la résider mais munoo ko dimbali ñaari yoon tu ne peux pas l'aider deux fois il faut que tu anticipes sur sur beaucoup de choses sur le coût des transferts j'ai attiré l'attention je l'ai dit au ministre je l'ai dit au DEA euh, ñoom euh, wax naa leen ko ma ne leen le coût de transfert risque d'être coûteux 3 milliards boo ci génnaa génnaate beneen 200 millions c'est cher les gens dañuy gis benn 500 francs mais 500 francs quand tu quand tu le multiplies par euh, 10 000 ou whatever, tu risques de dépenser trop d'argent. Alors j'ai proposé d'autres solutions, mais reste à voir, est-ce qu'on va valider ça Reste à voir, est-ce qu'on va valider ce que je dis Parce que ça risque de... Bon, tax foofu. Euh, ci kaw loolu dañuy des ci Covid bi ba tey nan ngay gisee euh, manifestation bi nga xamante ni coronavirus mu ngi koy def ci biir Sénégal est-ce que yow ci sa xalaat bu gàtt jàpp nga ni nit yi ñu ngi respecter les mesures bi nga xamante moom la non jàppuñu ko da ngay xool ni maag yow rek jàppuñu ko <laughs> non je pense pas Maguette euh, jàppuñu ko euh, tu sais mm, euh, le président pour moi il a cédé un peu à la pression de la population. Mais quelque part, excusez-moi, moi, moi je ne suis pas maquillant, je dis la vérité. Euh, à quand on te met la pression, tu dis, écoute, Deflen, vas-y. Mais les morts continuent. quand tu vas en Europe aux États-Unis quand tu vas en Europe que je maîtrise beaucoup plus mais affaire bi mu ngi wàcc ñoom ñu ngi commencé déconfiner progressivement mais ñun mu ngi yéeg ñu déconfiner man bi ñu ne école yi dafay tijji si di à ma femme école bi mënul tijji mu ne ma non no non mu ne ma date bi la ma ne ko mënoo muus ba waane ba mu tijji mu ne ma lu tax mais j'ai anticipé sur le transport j'ai dit c'est pas possible parce que transport bi bu ñëwee on te dit mburu yi dañ koy distribuer chaque quartier benn numéro je di c'est pas possible ñoo xam ne du xam-xam du njàng du diplôme mais question de bon sens la y a yoo xam ne mais mënul nag y a des yoo xam ne c'est pas possible euh, mais les gens vont continuer à mourir si si on ne respecte pas les mesures barrières wala si on déconfine ci boo xam ne aussi tamit balaa ngay dem jàngi day fekk nga am santé forcé jàng boo xam ne amoo santé man personnellement man suma suma doom yi dañ leen di jël si fii école bi da leen jël si mais bus bi dañuy dànkali ko yow soo taalee sa oto dugal si sa ay doom mais boo moytul ñu tànkali ko y a des réalités nous ne sommes pas comme l'Occident ñoom dañu am seen ay seen ay métro am seen ay bus yoo xam ne ñoom foofu day faral di di di taxaw foofu chaque élève est pratiquement véhiculé élèves yi bu ñuy jàng ñu tuuti ñi seen parents yi ñoo leen dugal seen seen kii ñoom ainsi de suite ainsi de suite nous n'avons pas les mêmes réalités et euh, pour man euh, comme respecté ça risque d'être très très chaud et c'est déjà chaud c'est déjà chaud ci wàllum Covid bi dañuy génn ci ci coronavirus ñëw ci sa relation ak euh, Bambaly Seck mi nga xamante ne sa neveu noonu lañ ko mën a tuddee voilà Seck nga magu yow yaay magu yaayam walla rakam. non man maay caat man man damaa doj rek. <laughs> léegi mën nga ñëw wax sa relation ak Bambaly ndax ci carrière jàppale nga ko bu baax wala. Bambali maa ko lancé waaw si carrière ku la lancé moom je pense que deseelatu la dara euh, euh, Bambali man maa maa enregistré album am bu njëkk maa ko bind maako ko financé euh, morceau yi A ba Z ko bind comme ni may doon bindalee ñeneen yi donc maa ko bind maako ko composé maa arrangé def ko sama studio jël suma xaalis def ci boole ko ak Sénégal sànni ko ci télé yi. indil ko tous les animateurs du Sénégal dans mon studio ñoom Boubs ak ñoom Yaa Awa je faisais venir tout le monde pour que ñu déglu ko daal di ci jàpp ñoom Amina Poté tout le monde je préparais le terrain avant de le lancer mm, yëgal naa ko ci seenu Viviane yu bëri boobu je voulais préparer le public sénégalais ñu ñu kanamam un peu euh, ba léegi nii maa ngi koy jàppale parce que s'il fait un son je viens au studio je viens je fais les basses morceaux ye ngeen di dégg ay morceaux yooyu ay miir yooy yooyu je viens je fais les basses je fais les guitares si sama studio la toujours foofu ngeen koy gisee muy def ay euh, Instagram sama studio la donc maa ngi koy jàppale jàpp ma ko sax que magam ah excusez-moi rakkam euh, yaayam c'est ma grande sœur yaayam c'est ma grande sœur bi may jàng école damay dem këram yaayam may ma fukki dërëm cent franc ma jël bus bi ñëw euh, donc il est de mon devoir aujourd'hui de l'aider xam nga euh, son père m'a aidé tu vois j'ai évolué avec son père donc rakku yaayam je précise magu yaayam je précise moo gaañu ah donc waaw magu yaayam donc Bambali je l'aide beaucoup dans son travail waaw gis nañ temps comme li nga wax léegi studio bi nga xamante ne moom la doon tourné sa studio la ci page Instagram bi mu ngi ko doon yëngal en étant jeune mu nekk ci milieu bi lan nga koy lan koy gën a ñaax. tu sais euh, dans dans ce milieu c'est un milieu quand même est compliqué euh, c'est un métier qui n'a pratiquement plus d'avenir ah soo ko waxee nag ça fait un peu mal ça fait un peur. Euh, chaque jour dama ko koy wax je lui dis bon écoute regarde Instagram euh, da ngay def sa live mais sa xarit day def live et dootuñu xamee koy artiste bi sa xarit boo moytu mu ëpp la vue donc maintenant on ne reconnaît plus euh, qui est artiste et qui ne l'est plus da ngay gis koo xam ne tey jii euh, do artiste mais ñooñu léegi sax ñu ëpp vu les artistes parce que les artistes ont trop donné donc le grand public aujourd'hui est en train de concurrencer les acteurs culturels. Et ça, c'est un réel danger. Un milieu qui n'est pas assaini, tu vas voir du n'importe quoi. Mais aussi, ces gens ont le droit de faire du théâtre, de faire des lives. Nous sommes dans un, dans monde où tout le monde est libre de faire. Li ma koy conseillé chaque jour ma wax ko ko euh, dafay xaw a gauche moo koy may wax fii li ma koy conseillé donc damay kon xas lay xaw a nuru un peu comme di wax ne euh, yedd moom euh, bu ko ñaar ñetti nit fekkee rek dootul yedd xas la quoi mais euh, man dama koy rendre bu baax de duma ko may dara xam nga moom xam na ko de duma ko may tous sama jarbaat la xam nga duma ko may dara. et c'est comme que sa jarbaat la bu la neexee nga wax ko lu la neex léegi bu ñu ñëw jugee ci bàmbali dañuy ñëw ci cadre Abiba léegi ñuy laajte sa relation ak Abiba c'est-à-dire côté professionnel Abiba mu ngi ci label bi ba tey wala. Non, non, non. Euh, xam nga tu sais dans la vie c'est comme ça moi bi may ñëw ci àdduna dama fekk ay label et quand je prends l'exemple de Jololi où il y ay ñoom Pape Cheikh ñoom Fatou Laobé euh, vraiment Abdouras tout le monde tey ñu ànd suba kenn ku nekk demal sa bopp euh, moom mu ngi doon liggéey ci labelu papaam en fait papam c'est un homme généreux qui est très bien même ci vidéo jijak bi boo ko dégloo maa ngi wax ñu jàppale waale monsieur Diop aussi daal di koy gestu parce que yàgg na dimbali les acteurs culturels on a discuté et j'ai amené ma pierre c'est-à-dire essayer xool nan laa mën a def pour que musique Abiba jëm kanam et pense que j'ai même apporté quelque chose mooy ci laa def si di erama boobu Euh, ci lañ commencé def euh, si plaza yi et là elle commençait vraiment di jouer lu bëri maintenant on euh, on évolue plus ensemble comme avant mais je n'exclus pas le fait que demain on peut se retrouver parce que man. duma wax mukk ne no lii du ma ko def nangam non non je crois pas ça euh, c'est comme avoir une femme divorcée et dire non du ma retourner ak moom loolu ay waxu naxas xandang la quoi euh, mais on n'évolue plus ensemble comme avant ko tout ça loolu la quoi. ok on respecte léegi li ma bëggoon a xam comme Abiba ak yenn jeunes yi est-ce que yow tu ouvres tes portes aux jeunes talents. oui j'ouvre j'ouvre mes portes aux jeunes talents la preuve am na artiste bu bees bu ñuy wooyee Uli mu dëkk Médina euh, Bambali bi ngay wax ni euh, je je l'ai toujours euh, benn tànkam mu ci biir label bi ci label ba sax la ne ndax ku nekk sa studio fayul dara ma toogaat musigaat musique ba fa la ne mënoo ci dara xam nga je porte moi moi j'ouvre mes porte pour tous ces acteurs culturels du Sénégal mais euh, je pense que il y a le grand public qui m'a qui quand même la balle mais euh, dafa am leen loo xam ne mun nga dimbali ba à un certain moment mais après c'est très chaud financièrement c'est chaud parce que tu ne peux plus continuer à aider comme avant parce que euh, quand même euh, pour nga mën di dimbali aussi il faut nga am luy dugg mais malheureusement ci marché sénégalais bi dara du dugg bu dara duggul doo mën a continuer di dimbali parce que danga am sa ay propre coono àdduna da nga am sa famille da nga am sa ay wayjur euh, lu nekk da bett et quand quand nous n'avons pas de politique culturelle c'est très chaud euh, c'est très très day metti daal xam nga euh, on essaie mais bon Euh, mais je vous porte à tout le monde euh, ñi nga xam ne dañuy tagg Seydouna Mohamed dañuy ñëw di enregistré léeg-léeg nit dina ñëw ñaan la nga enregistré bàyyi ko mu mais léeg aussi nit dina ñëw jox ma avance duma sax pare liggéeyam xam ah, bu boobaa moom man maay tooñ lu ci bëri ah ça m'arrive ci année bi parce que euh, j'étais très très concentre ci reçu mooy le mouvement dont je te parlais où j'ai regroupé tous les acteurs culturels les caméramans les journalistes culturels euh, ñi nga xam ne dañuy way dañuy fecc taggukatu yonent bi ñu joué cinéma ñu joué théâtre les réalisateurs les écrivains et nous sommes dans les 14 régions du Sénégal dans les 45 départements nous sommes dans la diaspora aujourd'hui nous sommes des milliers et des milliers et des milliers de personnes euh, donc loolu c'est pas un boulot qui est facile boo ko bëgg boole gérer ko et revoir pour xool le système qu'est-ce que tu peux amener de nouveau pour améliorer euh, ça te prend du temps et yàlla dimbali na on l'a réussi parce que créé maa ngi la doon wax sànq base de données boobu mais teewul on a pris une journée tijjin ñëpp une grande partie lu mat 700 membres au centre culturel Blaise Senghor et compte bancaire avec la banque UBA donc ça n'a jamais été fait dans l'histoire euh, ak ay formation yoo xam ne yii dem nañu sali séminaire ou les gens prenaient des chambres restaient dans les chambres et hôtel 5 étoiles yeewu et ça tout ça c'est te pourtant amuñu xaalis xam nga euh, on jour avec nos relations pour que kenn ku nekk mën ci génn maintenant nag du facile Euh, pour répondre à ta question j'ouvre ma porte loolu mooy porte bi nga xam ne foofu laa nekk instant yi mooy reçu bi nga xam ne day dugal ñëpp parce que nous avons même les nouveaux métiers de la technologie culturelle il faut nga dugal leen il faut intégrer tout le monde essayer de changer ce système euh, culturel qui qui ne sera pas facile alors balaa ñoo tàggatoo ak yow mën nañu xam Baba Hamdé lan moo koy xaar ci carrière am que ça soit dans tous les domaines carrière, euh, là, je suis en, en train d'enregistrer mon album jazz. Euh, c'est un album jazz, je l'ai choisi parce que day benn moment xam nga musique moom day benn moment boo xam da nga naan façon musique bi ngay def façon musique bi ngay def comme reçu jël na sama temps à un moment tu es tellement concentré ci waykat yi comme ni nga ko ni nga ko kiyee ba dangay ngay fàtte yow sa carrière euh, je suis plus concentré ci élément yooyu ma àndal ci reçu Euh, mais daal li nga xam ne moom ci laa nekk à 200 pour cent mooy album boobu et album boobu bon je dis pas que ni c'est pas un projet mais bon ça comme on a l'habitude de le faire je ne le considère pas comme un projet projet projet projet mais le vrai projet c'est reçu et c'est d'amener et d'aider la culture sénégalaise révolutionner la culture sénégalaise et l'amener à un autre niveau mais c'est une révolution qui est très pacifique Euh, ba nga xam ni ku nekk mën nga ci génn mën nga ci faju mën nga ci dund mais encore une fois si loolu mooy suma projet si le président bu fekkee ne bokkuma moom wala ñu mu dendal tijjiwuñu bunt yi pour que ñu mën ko dimbali moom ci boppam milliards yooyu du ko mun a am pour que mu mën ko am il faut que mu déglu leneen parce que qu'on essaie depuis 60, 60 ans, ça ne marche pas. Depuis 1960, c'est la même chose. Ça ne marche pas. Je ne dis pas que ça, n'évolue pas. am na kenn ku nekk la jot a def Senghor am na lu mu def Batir def Abdoulaye Wade Batir def euh, Macky Sall Batir def mais du infrastructure rek moom moo koy def il faut la capital euh, ce qu'on appelle euh, nu ñu koy wooye il faut nga am euh, euh, xam-xam bi ko war a doxal ba nga xam ne day jur xaalis ay milliards c'est des milliards c'est des milliards euh, ba nga xam ne gars yi dootuñu tàllal loxo bien au contraire Covid bu xewee ci keesu culture bi mën nañ fa tibb dimbali Covid mais ça c'est possible c'est rien du tout absolument rien xam nga mais encore il faut qu'on te donne les moyens le pouvoir d'exécuter pour pouvoir arriver à ce niveau. Baba Amdy ñu ngi lay jëfal kontaan nañ trop ci lii nga ñu dalal sa biir kër ñuy tàggatoo rek nga wax sa mot de la fin. waaw di wax rek merci encore ci invitation bi. Euh, coono moom a jàpp rek xaw a xaw a xaw a feebar tuuti moom moo tax ñëwuma foofu euh, di leen remercier ah, di remercier Moustapha di remercier le technicien di remercier aussi sénégalais yi euh, di leen wu coono aussi ci Covid bi parce que c'est pas évident tout le monde est impacté doo ay artistes rek ñoo impacté ki ah. di que artistes yi rek ñoo impacté dañuy wax lu ñu neex quoi euh, kii jaay fonde est impacté kii jaay caagri est impacté ñi dawal seen taxi sont impactés. tout le Sénégal est impacté peut-être ñi jot seen salaire ñooy xaw a mais tout le monde est impacté mais on essaie de faire avec parce que bah, l'histoire de la pandémie ne date pas d'aujourd'hui la première pandémie mu ngi am 340 avant Jésus-Christ c'est euh, la peste d'Athènes donc kenn mënu ci dara après nga muy amaat mi 347 ñu eggaat ba 2020 adduna noonu la mel on essaie de faire avec et je remercie tout le monde, je remercie le chef de l'État d'avoir répondu à nos appels ou à, mon appel, je ne sais pas, mais di attirer waat seen attention que ñu dimbali Djidjack Diouf génne ko foofu mu nekk mu dellu si njabootam parce qu'il a rendu quand même service à la nation. alors merci suñu mbokk internet yi li lañ leen andiloon ci seen émission bi di leen jaajëfal ak di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.